amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Mustafa wala yaara yum may yaay borom xaas ni Mustafa Muhammadu Abdallahi ax nii Mustafa ña daa xiiru mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña jabar ak ña ndax ku tuddu barab bi tuddu seigne Daaru son jaay waaw ndax barab bi seigne Daaru son jaay melne ne mom mom moy moy ciosan la moy ciosan la waaw barab la bo xane ne jamono yi sëñ bi ñewé Touba ah, booba àll la ñu wax ko seigne saliw fofu la tuddé won Touba bi mu gorlo nak ba agsi fi la daal wo daal koy góorlu bu mu set wecc bay ko ba mu set wécc buub ko ba mu set wécc daal di woo Serigne Darou Son Ndiaye ne ko dama bëgg nga takkal ma takkal ma fii am néeg mu daal ko takkal néeg bii waaw bi mu ko takkee ba noppi nag mu ne ko dama bëgg nga duggal ma ci biir sàncal ma ko euh, defal ma ci xalwatu wala lixtikaaf daal ba sëñ Darou Son Ndiaye dugg na ci ba def ci weer ak fukki fan ba mu génnee nag la ci borom Touba doog a dugal boppam moom it daal di koy sancal boppam nag nekk ci diirub juróom-ñaari at sëñ Touba nekk na ko fi juróom-ñaari at jàkka ji ci ëtt bi foofu la daan jullee ji waaye fii mooy fi mu nekkoon fi nekkoon diirub juróom-ñaari at yi mu am Touba ndax daana wax ne euh, yàlla nattoon na ko euh, Touba juróom-ñaari at rekk la ko yàlla may mu dëkk ko fi waaw loolu ba mu fi jógee la ko wax sëñ Mbacke Bousso pour mu wax ko fare yi pour xamal leen ni leen tuubaakat kat juróom-ñaari at lekk ba yàlla may ma dëkk ko fi. Njaareem Njaareem it wax nañ ne fukki at ak juróom dafa am fii nag ci bayti nag bi mu delloo ca boroom nag la ko Cheikh Moustapha jaarale fii fi barab bi xanaa fi lay wàccaay yëpp fi la ko defee daal di dem foofu ca barabam bee mu mu mu mu dalloo. waaw loolu daal lañ ci dégg euh, fekke wuñu ko waaye nag dégg nañ ci mag ñi ñu wax ne loolu noonu la demee Euh, wax nañ ne it barab bi ñam àndaloon muy ñu tudde leen euh, maanaam xeeti jinne yi am na ñu jébbuloon ci moom ca maayom ba ñooñu it ba mu jógee njëriñ ànd ak ñoom bañ ñëw fii ah bi ñu wax nañ ne sëñ bi ba mu demee foofee ca barab ba ñoom fii lañ des maam fii lañ desali waaw moom fii ci xaar gi loolu daal wax nañ ko. waaw ah, wax nañ ne ñu ngi fi waaw moom ba tey ndax sëñ Mbàkke Madina moom jamonoom fi nekkee wax nañ ne daan nañ leen wutal ndox rootal ndox noonu ñu daan ko daan defi ci njëriñ ndax ki ma ko wax bàyyi Ousmane Samb moo ko jur mu ngi dox Moustapha Samb moo toog fii fi san ne ma nun noo daan root band yi sëñ Mbàkke daan leen wax noonu léeg leen sëñ Touba daan wax naan leen ah, ne leen root band yi ko raxas ba mu set te bu leen ci naan ndax ñiin koy rootal kat du ñu naan aw des ndax sama sang bi ñu wax sëñ Ousmane Ndiaye jëmm ji nga seen nii maanaam nee na ma bokkoon na ci ñi daan root ca njëriñam muy sëñ Ousmane Ndiaye mii moom ma jërbaatu maam Serafal moom mii ma sama ko wax ndax moom laa tarbiya moo wax ne me daana duyul sëñ bi mbànd yooyee moom moom mii moom sëñ mii mbànd yooyee nag bi sëñ bii yàlla dogal sëñ bi la kii sëñ Mbàkke Madina bi mu sañcee ci kër gi dégg naa daana leen rootoon ndox waaye gannaawam nag mbànde yi moom nekkatuñu fi damaa xamul nag euh, lu tax nekkatuñu fi ndax lool da ca amoon ndigal moom xay na ñu gis xëy na dañoo amul ndigalam walla wala déet waaw loolu daal la doon ciy xam waaw. waaw waaw waaw waaw waaw baax na waaw. na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha fallaatu dëkk Touba Guédé di taalibe bi sëñ Abou Mbacke Mouhamed tey nag ñëw naa fii di siyaar si eh, agsi naa si buntu bayti bayti goo nga xam ne lii bagage Daaru Xudoos lépp li si ëpp mi ngi fi ñuy ñaan yàlla suñu siyaar bi suñu borom nangu ko te booli ko booli guddi di ñaan ngir yàgg nu fee fekk nu yàgg fee dajee te suñu borom defal lu gën a kawe suñu jot suñu jaamu yàlla kon màggal gi nga xam ne moo ñibbisi sëñ Touba ci Touba euh, wax nañu ne Cheikh Abdoulaye Mbacke bu baax ma jamono yi ku baax kii ñëw Touba bi ko sëñ Modou Moustapha di indi Touba la fëggan ki mu tëddal ne ko indi nañ sëñ Touba Touba kon dikkug sëñ Touba Touba ak ñibbisee mooy màggal gi kon yan saa borom defal lu kawe suñu jort yéen yal ngeen fi yàgg a ñëw suñu borom barkeel seen liggéey li ngeen ci bëgg yal ni saa borom defal lu kawe seen jort sigil te weytoo madru yi tuub nañ ci te bul faale ka wuy see ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ña daawoote ña daawaate Moustapha